بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuy di leen siyaar di leen jox seen waaye ah, di nuyu képp koo xam ne yaa ngi toog ah, si télé VFtv ah, di nuyu askanu Sénégal di nuyu kay ñëpp ñoo xamante ne rek ñoo ngi bokk ak ñun ak émission bi maa lay ziyaare bu baax a baax di dala gan gu mat gan muy Abdoulah sëñ Abdoulahat Diop moom laa dalal tey ji fekk si ko ku naqare nag jot la macha allah tey mu yombala ñu émission bi franchement ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko bàyyi rek mu nuyu askanu Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa VFtv ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di am mbégte wu baax ak kontaante ci seet si ngeen nu seet si Euh, jaajëfate euh, sëñ Abdou Lahat euh, Diop man lay ziyaare bu baax a baax te temps bi la ñu may ndax yow ku jafe na macha allah comme ni ma ko waxee sama biir nuyoo macha allah ñun lay jaajëfal waaye nag tey ji dama bëgg la wax askanu Sénégal ñëpp lay seetaan ndax télé bi dafa nekk télé askan télé réew mi yëpp macha allah tey ñu invité la tey la nekk kilifa boo xamante ne macha allah ko kuy yëngu si wàllum ñaan te yaakaar naa walaay may dugg sax si waxtaan bi dama bëgg la wax askan waxtaan bi yow yaay kan ak euh, sëñ Abdoulahat Gueye euh, kan moo ko jox xam-xam bi daf ko donn wala da kaa da jàng wala lan la. jërëjëf soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di am mbégte bu baax a baax ci laaj bi nga ma laaj ma sawar ci loolu ci loolu ci nag ci tontu xam-xam bi nag dama ko euh, dama ko donn ci sama ay wayjur waaye dama wëlbatiku nag jàng ko ndax donn rek doyul faaw nga jàng ngir mën a mottaliku li nu jàng nag moo ëpp li nu donn ndax fekk nañ fi lu bari sunu wajur di ko di ko jàmbaare ci wàllu xam-xam waaye eh, damay ñaanitam itam sut ko ci li mu daan def may def lu raw li mu daan def te itam yàlla mi ngi ma koy may ndax eh, doona bu dëgëree eh, da ngay li nga fekk da fekk wut lu ko lu ko lu ko lu ko supérieur lu ko supérieur waaye waroo wut loo xam ne moo koy gën a dellu gannaaw loolu nag yàlla defal nañ ci tawféex ba euh, képp koo xam ne jëflante na ak ñoon rek dana xam ne sëriñ bi moom li ko war moom mi ngi koy def euh, ba tey tam ñu santaat yàlla bu baax a baax euh, julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam sant sunu sëriñ seexuna seex ahmadou bamba xaadimal moustapha di sant sunu sëriñ sëriñ abdul aziz borom daaru tanzil di nuyu mbooleem waa àdduna ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne yaa ngi bitim réew moo xam muy Amérique moo moo xam muy Asie moo xam fu mu a doon ba ci réew mi ñu nekk muy Sénégal ñoo ngi nuyu ñëpp di di di di gërëm ñëpp di xam ne li ñuy jëfandikoo nii xam la doon boo xam ne bari na lool fii mu ne nii nit ñu koy woote woo te la ñuy wax ne mooy xam ak la ñu yor dafa wuute boo duggee ba ci biir rek nga xam ne ñii la ñuy woote ak la ñu yor euh, la ñuy la ñuy woote ak li ci biir moom wuute na waaye ñun li ñu yor dafa doon lu wér mooy euh, nuuraani yu di xam-xam boo xam ne xam-xam bu set wicci la te euh, mi ngi dox ci itam ci diggante alxuraan ak sunguf doon donnuñu lenn lu dul loolu sunu wayjur ku ko xam ku ne ci alxuraan nga ko xam ak ci sunguf nun nag ñu ñëw dollikuwaat ci wàllu sunguf dollikuwaat itam ci wàllu secret boo fi mu ne nii euh, dama damay wax ne euh, li ma ciy def dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sama waajur daaw daaw daaw daaw ko ci def ndax moom bari na ñu ko xam bu ma tuddoon turam dana bari ñu ko xam lool ci wàllu baatin waaye nag man sama bopp laay jaay sama waajur wéy wàllam wéy nañu di ko ñaan yàlla su borom bi yërëm ko te xaari ko àjjana waaw man sama cosaan euh, kokki la ndax sama waajur mi ngi dëkk mi ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax ndaam kër Ali mi ngi ci côté euh, euh, boo ñëwee boo dem kokki boo ñëwee ba dëkk bu ñuy wax njóobeen njóobeenu ngunta sama waajur foofu la foofu la cosaanoo fa juru góor sama wajuru jigéen itam mu ngi cosaanoo dëkk bu ñuy wax ci leen ci leen bi nga xam ne moo nekk ci diggante euh, njóobeen ak warak foofu la sama wajuru jigéen jóge waaw sa wàjju fi wax na cosaanam macha allah te ku wax nag euh, foo sa cosaan war na am nag foo xamante ne fooy yeewoo mëgg nañu képp koo xam ne ku la soxla fan lay jëm euh, ndakaaru la dëkk wara kees wala wala tuuba wala ndar ok jërëjëf soxna si ñoo ngi sant bu baax ci laaj boobu nga nu laaj euh, liggéey bi nag euh, diggante ñetti béréb yi laa nekkandi muy diggante Thiès Ndar Touba ñetti béréb yi laa nekkandi ci wàllu liggéey bi waaw kon nag dégg nañ ko fu mu wax Ndar ak Touba ak Kees foofu la nekk macha allah ku ko soxla foofu lay dem sees waaye ñoo ngi tàmbaliwaat si liggéey bi ne damaa gis wax dëgg yàlla bagage yaa ngi tegu si table bi te yaakaar naa borom xam-xam la ku ko ku ko gisul tamit dégg na turam ku ku ko déggu tamit gis na ko macha allah tamit borom baatin la si wàllum alxuraan si wàllum sunguf comme ni mu ko expliqué si loolu lay dox si loolu lay yëngu ndax xam-xam bi dakaa doon si si waajuram bu góor kon nag sëñ bi man damaa gis fii Euh, kurus boo xamante ne mu weex tàll macha allah tegu si kaw euh, ay alquran euh, léegi foofu nag laa bëgg la gën fa dugg. xam nga kurus ñaan ci yàlla moo kurus ñoo ànd ndax kurus dafay mottali dafay mottali nitu yàlla pour jàllale ko ci boromam mooy tur yooyu jëfandikoo ngir mën a jàll ci sa diggante ak sa borom kooku jaamu yàlla la sa diggante ak sa borom te itam xaajo yi nga xam ne doomu aadama yi dañu koy am ñu indil la aajo yi dafa am aajo boo xam ne kurus moo koy mottali bu la nit ñëwee sant la ñaan da ngay xam lu mu tudd xam way juram xam lam lay la lay lam lay sant ñaan nga daggal ko xaatim toog yor sa kurus ñaan ñaan yàlla sa borom ngir mu faj aajo bi ndax ndax ndax ñaan ci kurus mooy mooy ñaan bi gën a gaaw ñaan ñaan ci kurus mooy ñaan bi gën a gaaw fii ne boo soxla woon léegi euh, États-Unis bu la neexee fii ngay toog woote téléphone jàkkaarloog ki ngay waxal directement nii mu di la gis nga di ko gis du jar du jar sax du jar sax ngay ngay ngay jóg dem bu jëkkoon nag xool xamuñu ko woon ndekete loolu lépp suñu borom mi mu dëxëñ ci ci ci mbiram boo am na loo xam ne boo ko soxlaa da def directement jàkkaarloog sa borom yow ak moom kenn du dox seen diggante mais amee ah, yàlla rek nga nga nga nga nga jëmal ci sa kanam nga ne ko diw moo am soxla sàngam soxla bii laa bëgg nga fajal ko ko yàlla ne nangam ak nangam nga def ko lu aajo ba fajul kooku moom amul sax ma dem te ñëw da nga koy def léegi gis ko ci kàttanu yàlla incha allah si kàttanu yàlla moo ko di wax nag walaay may dugg nag si table bi macha dafa am si yu muy yëngu ay bagage yu baax a baax yoo xamante ne askan bi yëpp a ngi daw du ko wut si te yaakaar naa jamono bi ñu toll euh, soxna yi laay gën a jàppale ndax tax ma ne damay jàppale soxna yi ndax euh, borom kër yi euh, dañuy bëgg di yëg seen bopp te yaakaar naa genn wàll bi yëpp am ñoo xam ne du ñu yëg seen bopp te moom mi am nañ ko expliquer xëy na ku nekk dala daw ñëw. ok jërëjëf soxna si ñuy sant yàlla bu baax foofu moom dafa doon dafa am phénomène bu bu bu am jamono bi nu nekk nii te bari na góor ñoo xam ne lañu ñu mënoon ci seen kër mënatuñ ko moo waral jafe-jafe yu baree baree bari ci di am di am di am ci kër yi euh, bi ci njëkk mooy diggante ñaari way dencante mën nañu dem ba xàjjalikoo man xam naa ci ay diggante yu bari yoo xam ne la leen tàqale góor gi moo dem ba mënatul dara soxna si di ko muñal ba mënatul a muñ ndax gis nga kenn ku nekk la liggante lekk ak naan ak li nga yor ci sa wàllu poos am na sa kër bàyyi dañ ko fa bàyyi ñëw jox la sa boroom kër ngir nga jaamu ko te tax nga di ko jaamu nag jaamu yàlla lañ wax te jaamu yàlla li ca ëpp ca loola moo di bu la soxlaa mu am mu mën laa am la war sa diggante moom itam maanaam mu jot la ba li nga bëgg mu am ko léegi nag loolu yàq na mbooleem sëy yu bari ndax tey jii bu fekkee da am sa boroom kër mu leer ne mënul ci yow dara te te soxna bañ ko takk njaboot moo tax te loolu am na loo xam ne ko ko mënul njaboot njaboot munta munta munta taxaw waaye képp koo xam ne yàlla daf la nattoo nga néew doole ci wàllu sëy euh, bu fekkee dafa dee wet mënatul dara jógatul te li ko te ko rey euh, jàngoro la wala muy rab ci kàttanu yàlla dama koy dindi ba mu ba mu dundaat mel ni mu meloon su fekkente bi itam dafa dee te dee bi mu dee def ko judduwaale kooku moom yàlla xam na ne mënuma ci dara ndax xalqullahi laa yuxayiru yàlla moom lépp lu mu bind jaam tuut na ci ci ci ci ci sensé ko waaye daal képp ko xam ne daf koo dab moom ci yoon mu daan mu daan mu daan mu daan mu daan mu daan yëg boppam ba yëgatu ko kooku moom dama koy dindi ci déer bu néew ci kàttanu yàlla te la ma lay jox itam du lay jox sama gàllaaj dama naan la bul jaxasoo ndax man sama mbir boo koy jël doo jaxasoo kon dalay leer ne ko kii lim lay lim lay jox baax na ndax ndax jox la dara ne la boo demee léegi isin ko kon am na lu ñu dëxañ ci biir loo xamul mooy garab yi ñuy joxe léegi nga xam ne garab yi tubaab bi di jaay ci pharmacie bi dañ koy jël di ko boole ci garab yi loolu ki koy jël daf koy jël di jaxasoo di yëg boppam su bàyyee garab gi rek mu delluwaat mel na meloon man nag bi ma lay jox dama naan la jëfandikoo ko juróom-ñaari fan yoo xam ne doo laal sa soxna ci kàttunu yàlla te boo ko te te boo te boo àndeek moom boo demee moom moom moom bu muy day jékki-yëg tëb la ca lal dégg neen ko moo leen ko expliqué ne wax wax wax dëgg yàlla li mu wax moom kenn mënatu ko tegg ñëw leen ñoo xamante ne am nañu feebar boobu la ñëw leen daw si seet si euh, sëñ Abdou Lahad Diop euh, ndax yaakaar naa yëg sa bopp moom euh, lu baax la si doomu aadama si jaamu yàlla la bokk waaye ba tey duma ko bàyyi de ndax. am ñoo xam ne fi mu ne nii lenn moo leen di dal am na ci ñoo xam ne li la la la leen tee yëg seen bopp ci xale parfois ma gis ñoo xam ne xale bu ndaw lay doon duggagul ci néegu sëy am problème am am am problème sexe légui léegi tuq walagul bënn da fay jafe loolu pour nga gis ko waaye léegi da ngay gis góor goo xam amagul soxna tële carrément léegi nag li def mooy am na ñoo dañu amee rab maanaam dañu dañu am ndaw as ngay jaxasoo ak moom naturellement mel yow da nga yaa ngi jaxasoo ak ak ak ak jigéen dafa lay jox sa tante am na ñooñu di jox sax seen wayjur bu dee rab wu bon la am na ñoo da leen di jox seen mag bu dee rab wu bon la am na ñoo da lay jox jàmbur ci bitti nga jaxasoo ak moom normal mel ne mel ne ku jaxasoo sa soxna saa boo xëyee da ngay dem sangu léegi nag mag ñi dañoo léeb ne ku jël lu bari sal tuuti bu fekkee yow la nga waroon a jël ci la nga waroon a jël ci euh, ci combat bi bi nga bi nga war a def muy muy naturel bi danga ko jël ci biti kon boo amatee combat sa combat dootu jëriñ dara donc nag am na ñoo xam ne rab di leen jàpp na leen ba dañuy master bi yow dugg ci ruq di foye seen bopp foye boobu day dem ba seen sàkkara day mujj gàtt te bu gàttee day mujj fasu li koy def mooy ni ñu koy dugal ak génnee nii di se fas seen loxo mooy mujj mu dem ba fasu te bu fasoo nag moom kooku baatin rek moo ko mën a dindi te am nañu loo xam ne bu ñu la ko joxee bu ñu la ko liggéeyalee incha allah rabbi dana ko ba toll ni nga bëgg ci kàttanu yàlla incha allah loolu la wax dëgg yàlla ku lu nekk rek feebar bu nekk rek am na médecin om te yaakaar naa feebar boobu noonu euh, di yokk ngóoree euh, wax dëgg yàlla médecin baa ngi ne ñëw leen daw si ñëw seet si ko nag ndax loolu moom macha allah euh, dafa dafa bokk si askan bi nag dafa bokk si askan ndax xale yu ndaw yi nag moom léegi dañuy wax ne dañuy bàyyi kër yaay bàyyi kër kon nag am na lu ñuy wuti kon loolu ñuy wuti nag bu fa nekku rek dañuy dem kon nag walaa leen di dem na ñëw leen seet si sëñ Abdou Lahad Diop kon nag ba tey duma ko bàyyi sëñ Abdou Lahad gis na jóge nañ si sang yi euh, ñu ngi ñëw soxna soxna yi ñoo ngi lëmbee si biir dëkk bi ba dégg gis naa si benn audio boo xam ne sax dañuy def groupe pour wuti jëkkër te gisatuñu jëkkër ndax est-ce que tamit rab du def loolu oh, d'accord xam nga li ma leen wax léegi ci ne la euh, jig góor dafay tëdd mel na day jaxasoo ak jigéen kasaalika jigéen nit dafay tëdd mel na dafay jaxasoo dafay jaxasoo ak góor te donc loolu day day day jàpp jigéen ba day dem a dem dem ba mujj muy muy muy toog jamono yoo xam ne sëy rek mooy nekk ci boppam ndax kanamam dafay xasen automatiquement loolu bu boobaa mi ngi lay jagn ci ci ci moy yàlla gu méttee méttee méttee méttee am na ñoo xam ne ñi ngi mooy yàlla te teyuñu ko li def mooy dañ leen a ñamal lu ñu xamul lañ leen a ñamal te xamuñu ko ne ndekete am na gu ne ci biir suñ xasse xasee mos benn yoon rek jeexna na dañ koy wuti koko nat topp na ko du ko mën a wax kenn ndax fu mu yëngutoo ci moom rek dana dem wuti góor pour pour pour pour ànd ak moom donc kooku nag day dem ba mujj jafe-jafe day dem ba sax kanamam day mujj yàqu ci lu bari waaye incha allah rabbi jigéen ju mel noonu su ma ko gisee ci kàttanu yàlla danaa ko dimbil ba loolu dañ euh, benn am na ci ñoo xam ne leen la tee ñu am borom kër rab lay doon rab boobu moo lay yàqal ndax toujours ma daf lay feeñu ngay ngay ngay ànd ak moom ñaare boo amee sa far boo xam ne da ngeen di commencé di waxtaan yaag moom ba seen diggante commencé neex da ngay jékki-jékki rek mu jékki-jékki wan la gannaaw dootu la nangoo woo téléphone day jékki-jékki rek wan la gannaaw dootu la nangoo te woo téléphone fu ne nga dem fa di di def sa yef mu tëddeel si kooku kooka rab moo moo mo mo moo ne ci biir mooy tàng sa xol bi te kenn du la def mooy tax itam yow nga jékki-jékki ben instant jékki-jékki rek sa bir bi jékki-jékki rek oval nga defee da nga ëmb te fekk ëmb amul yooyu rab moo loolu rap mo koy def da ngay xëy suba sa sa famille ñi nga nekkal muy sa papa muy sa yaay muy say say famille da nga jékki-jékki rek wan leen gannaaw taf tëju tëju sa biir néeg lan la lan la nga ne ceel doo wax ak kenn loolu rab moo koy def loolu nag donc bu la jàppee ba jàpp la dëgg dëgg dëgg dëgg góor gu baax goo am ba mu leer ne commencé naa woo téléphone ba commencé ñëw day jékki-jékki rek wan la gannaaw dootu la woo te doo xam lan moo tax waaye loolu comme ci mën a doon ci ñooñu incha allah ci kàttanu yàlla bu nu seetee bu soobee yàlla akub yonentam danañu fexe ba loolu nekkoon ci moom dañ ci kàttanu yàlla incha allah. waaw sëñ bi ba tey duma la bàyyi si wàllum rab rek ndax léegi rab yi moom moo ngi tas tamit sëy yi même temps da am sa jëkkër doo jubóog moom comme noo ko waxee euh, ba mujj euh, ku góor ki du bëggati ku jigéen ki ku jigéen ki du bëggati ku góor ki léegi ban pexe nañ si mën am ndax dama. xam nga d'accord gis nga gis nga gis nga rab day tas sëy ñaar dañuy couple bu neex rab day ñëw tas sëy bi rab day liggéey liggéey ba nga yaakaar ne liggéey bi nekk ci kii nii nit moo ko def fekk rab moo ko def donc rab euh, dafa dafa dafa dafa doon loo xam ne dafa dana naqaree tàggale ak nit li nga def mooy danga koy neexal ba la mu doon def dootu ko def waaye dindi rab ci nit ba dootu am rab moom kooku moom ku ne la mën naa ko day wax la ko neex rab danga koy xam da ngay da ngay da ngay da gëstu nit ki dugg ci biiram ba xam code secret lan la nga dugg ba comme application yi ngay gis nii ci ci affaire yi nga moo dugg ci benn site wala yu demee noonu xool li nekk ci biir rab noonu ngay def dangay ngay dugg ba xam mbooleem secret bu ne ci biir ci biir euh, jëmm jii nii nga nga nga xool ko ba xam lan la nga génne ko ci biti neexal ko nag ba moom li mu daan def dootu ko def maanaam la mu daan def fam loo koy remplacer loo koy remplacer loolu nag mooy mooy tour deret tur deret nga koy remplacer le def la ngay def boo ko defee ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi kooku moom li ko daan yàqal dootu ko yàqal ci kàttanu yàlla incha allah danañ la wutal loo xam ne itam soo ko defee ba takk ko sa ndigg lii maanaam boo doon gént di sëy dootoo dootoo dootoo sëy soxol bu la doon bu doon tàng itam dootu dootu dootu tàng su fekkente bi ne gis nga itam jigéen jii nii tey jii diggante ak borom këram bu ñëwee rek am na ci ñoo xam ne parfois am na ku ma ko doon wax tey suba borom këram su ko woo téléphone bu nekkee àll di ko woo téléphone seen diggante dafay neex waaye su egsee ci kër gi te moom kese la amul wujj amul dara mhm. moom kese la te bu ñëwee ci kër gi rek buñ commencé gisee rek dañu commencé am problème am commencé problème léegi nag ndaw si wax ma ko ne moom daal affaire boobu moo jaaxal ma gëstoo dama ne ko lii du daal lu rab la rab moo nekk seen diggante di ko di ko yàq du du du du du bul jàpp ne sa wujju peccor golo wala nga defe ne sa goro la wala nga defe ne kenn la liggéey bi rab moo koy def rek soo ko dindee rek ba loolu amatul mu mu mu tranquille mu dund dundam sëy sëyam sëyam bu neex ci kàttanu yàlla incha allah ah mu sëy sëyam ba tey rek euh, sang bi ba tey dafa am loo xam ne maa ngi koy gëstu si yow ba tey rek bàyyi du ma bàyyi euh, dégg naa ñoo xamante ne dañuy bëgg am liggéey te te duñ mun a am liggéey fu ñu déposé rek euh, ñu ñu refusé seen seen seen seen diplôme wala yooyu du ñu am liggéey daal te dégg naa yow am na si ñaan yoo xam ne daal ay na si trop pour ñu am liggéey du yàgg kooku moom maa ci sut yàlla bind ci kàttanu yàlla képp koo xam ne dafa bëgg ay kayit moo tax kayit yu kayit yu mën doon mo xam bëgg déposer pour liggéey la ci bërepp mo xam Sénégal mo xam mo xam bitim réew wala itam mu doon koo xam ne euh, day def fu mu liggéeyee rek mel na dañ ko fay dàq day am ci nit loo xam day ne ci moom loo xam ne lu mu fa liggéey dañ ko fay dàq wala mu nekk ak patron fi bërepp patron bi mu nekkal euh, mu tàng lool am na loo xam ne boo ko defee sa poche bi incha allah rabbi ci kàttunu yalla foy liggéeyee yaa fay raw lem ci kàttunu yalla sa patron du la mënal dara boo doon jël bureau bi di ko taal jël caméra yi di ko di ko tojati du wax ci yow du wax ci yow dara jàmm rek la lay wax su fekkee ne bi da ngaa dem ci béréb itam kooko doon ku tàng jër di dàqe am na loo xam ne dinaa la ko jox ngay fexe ba denc ko ci sa koofur wala nga wala wala xam nga bureau yi mënees koo waaye sa koofur boo ko fa bu soobee yàlla bureau bi saa bu lëgg saa bu ñuy defar maanaam yow moom say mbir dañ koy yokk ca kanam waaye ci kàttun yàlla dootoo dellu gannaaw ndax euh, yàlla moom kalimatullahi hiya al uliya kaddu yàlla fu mu mën a jëm ala kulli xaal day jëm kaw ci kàttun yàlla du mas a du mas a du mas a jëm suuf loolu moom leer na naañ yaa leen ko déggandoo la kii may sëñ Abdou Lahat Diop euh, dëkk Kees dëkk Touba dëkk tamit euh, Ndar Géej euh, ku ko bëgg a seet rek foofu lay mën a jaar pour gis ko xam naa nag moom da ku mënu bind nag bu nekkee maire bi mënu bind wala yaay ji wala képp koo xam ne soxla na numéro fexeel wut ku la ko bind ndax moom mi dara jàllale numéro pour leen seetu ko ndax kilifa la bu mag a macha allah te maa ngi gis tamit sëñ bi te table bi macha allah alxuraan a ngi fi sungufu ngi fi doo ma expliquer tuuti si wàllum alxuraan wala ñu ñëw si sunguf si yee xam nga alxuraan li maanaam am na am na am na am na yu fi nekk yoo xam ne euh, ci wàllu euh, bayre lay dox am ci yoo xam ne ci wàllu euh, maanaam yëkkatiku ci lay dox am ci yoo xam ne ci wàllu tojtal liggéey ci lay dox waaw maanaam maanaam bari na te ba pare te bokkul daal waaw lenn lu ci nekk ak la ko tax a jóg am na loo xam ne bu fekkee nit ki dafay liggéey te bëgg siiw ak siiw bu mu mën a doon ci kàttanu yàlla su ko su ko su ko jëfandikoo rek des na ko des na ko dégg incha allahu rabbi incha allah waaye nag ba tey duma la bàyyi de ndax gis naa fi jaaro gis naa fi sunguf waaye dafa am loo xam ne dafa intéressé askan bi ndax nit ñi léegi ñoo ngi daw si médecin yi di faju ba sonn ñu gis résultat muy wàllum diabète wàllum tension euh, wàllum ëmëri yëpp nit ñaa ngi koy daw du ko faj te amuñu si euh, solution sëriñ si tamit euh, sa comme la baal ma nag ndax damay dugg nag ba mu xóot a xóot ndax damay gis sëriñ yu bëri dañuy wax ne loo bëgg Mhm. ma la mën naa ko xam naa ko su ma lu ma xamul du mhm. ma ci am complexe ci ñi may seetaan dama naan la lii mënuma ko xawma ko ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla kon nag yàlla nga ko déggandoo ndax dama gis faju jabet nit ñaa ngi koy coow na mën nañ ko faj mën nañ ko faj est-ce que loolu tamit dëgg la si wàllu baatin <laughs> waaye gis nga jabet bi may faj jabet jabet képp koo xam ne da nga ba nga am jabet jabet bi fu mën a toll niveau bu mën a toll ak bu mën a toll faj bi ma koy faj du mat fukki minute astaghfirullah fukki fan ak juróom mu takaliko ak yow buñ la joxone garab dama nan la teg ko ne lee man la del nan sucre sucre bi la docteur jox bul ko nan nanal li malay lay jox te boko jefandiko dana dañ ah. tension bu jappé nit mu dem ba dam lamiñam bi mënatu la wax buñ mako andilé inshallah rabbi ci katunu yalla ñetti fan mu wax wala ñaari fan ci katunu yalla limako jox mom suko tambalé tàmbalee yi da nga gis mu commencé dañ ci inshallah ci walu ci walu tension kumu japp ba la wax wala ay cëram am fu am am fu damm nga xam ne kii dafa maanaam dafa làggi incha allahu rabbi dana li ma koy jox su ma ko toggee ba pare ba jox ko commencé koo jox mu di ko mu di ko mu di ko commencé naan da ngeen fekk sax garab yi jeex waaye dama leen di wan bouteille yi bu bu ko commencé jëfandikoo rek incha allahu rabbi day dem ba làmmiñ bi lu mu lu mu takkoon takk taq day dañ ba set ci muy wax wax bu normal ci kàttanu yàlla incha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek tey jii moom gan gu mat gan laa dalal si sama émission bi macha allah ku jafe nag ku jafe ko ndax amul jot ndax ñu ko soxla ñoo bëri macha allah ñu ngi yemoon wàllu wàllum euh, jabet ak tension te gis nañ lu mu si wax macha allah lu am solo ngi noonu waaye ba tey sëñ bi duma la bàyyi de euh, Émeric mu ngi sonal nit ñi léegi ban pexe moom moo moo si mun a am ba xamante ne nit ñi boo leen euh, bu ñu ñëwee si yow ñu am saafara. jërëjëf soxna si ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di santaat ñëpp rek képp koo xam ne mu ngi jàkkaarloo ñun dina xool rek ñu ngi koy sant bu baax a baax maanaam émoride dafa doon loo xam ne euh, ci xeeti togg yi moom moo koy moo koy moo koy joxe émoride nag siti moo koy jur maanaam ci siti mooy am ba émoride jekki-jekki génn ci biir siti euh, euh, émoride képp koo xam ne dal na ko dangay gis ne biiram foo ko fekk ñaari dafay jooy dana doon koo xam ne itam euh, du lekk ba pare day xiif dana doon koo xam ne itam biir yaxam yi nii dafay tàng jër biir tànk itam di tàng jër day jàpp nit ba day dem ba mel ne ku am problème mu bopp maanaam euh, tàggale ko am xelam ndax man gis naa ci ay nit ñoo xam ne bi ma leen commencé di leen traité dañu dem ba loolu dal leen am na ci ko xam ne dafa dem bay dénkaane xam naa bu bu seetaanee euh, kii bi bu seetaanee télé gis lii dana xam dana xam dana dana xam dana xam dafa dem ba ay bay dénkaane demoon ba ay njabootam jaaxle ci moom te dara jàpp ko lu dul lu dul lu dul hémorroïde dafa am interne am externe koo xam ne dafa nekk ci biir ak koo xam ne dafa nekk ci biti waaye kum ci mën a doon ci yooyu incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla bu nu seet see danañ fexe ba mu saafarawu bi ci biti itam lañ lay jox boo koy diwoo lañ lay jox boo koy diwoo incha allah rabbi ci kàttanu yàlla moom moo moo nekk moo nekk moo nekk nii moo nekk nii moom danga koy danga koy naan soo ko naanee itam jël ko euh, di ko diw ci picc bi nga boole ko karité di ko diw ci picc bi incha allahu rabbi yàlla xam na ne doo ko jël diir bu néew te hémorroïde bi nga doon sentir yow ci sa yaram bi sentiratoo ko ak ak ak fu mu mënoon sori ci yow nag incha allah rabbi buy dagg itam doo ko yëg buy dagg doo ko yëg maanaam dafay dafay dangay ngay jékki gis sa gis sa gannaaw rek muy tooy muy tooy benn tooy tooy tooy bu ndaw nga xam ne am na am na am na am na am na am na lu xew. waaw léegi hémorroïde bi bu génnewul picc mooy hémorroïde yoo xamante ni si biir lay nekk lan mooy si pexe. waaw bi ci biir soo ko soo ko jëfandikoo soo koy soo koy naan maanaam danga koy gaanuwaay da koy gaanuwaay gaanuwaay bi dangay dem bay bay gaanuwaay lu mel ne deret maanaam maanaam ndax ndax hémorroïde butit la butit bi ci biir mooy sol jàngoro bi. dema dema dema ba ba mujj mu génn ci bitti bu mooy mooy bu infecté bu infecté day mujj génn ci bitti su fekkee ci biir la nekk mooy waral nit ki yaram bi tàng jër biir bi di mel melekaan woo xam ne day jaaxal sax borom dafay toog jotaay sax ngeen baal ma mu jekki-jekki maanaam am lu am lu yëngu ci moom day am sax kersa te te hémorroïde bi moom moo koy moo koy moo koy moo koy def waaye soo commencé jëf jël danga gis ne yaa ngi gaanuwaay gaanuwaay bi benn jamono bu néew da nga gis benn benn instant nga jékki-jékki mel ne kuy génnee deret muy génn tuuti tuuti tuuti tuuti day dem ba jàngoro ji day jeex tàkk ndax boo gisee deret boobu mooy dafa dagg affaire bi ci biir am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba benn instant ñu naan la dafa am lu mel ne mbuus buy génne ci seen kanam nga xam ne da nga koy xëcc mu génn soo xëccee mbuus bi su génnee nga doog nga doog mën a gaanuwaay yooyu yëpp feebar la yu ne ci nit yoo xam ne mooy dem ba euh, doomu aadama toogaay bu yàgg sax dootu ko man ndax ñiy toog ci bureau yi ak ñi nga xam ne dañuy liggéey lu mel ne wàllu euh, euh, tailleur wala itam safoor yi wala itam ñiy toog toogaay yu yàgg daal ñu ci ëpp ñoom la ëpp ñu muy dal waaw ah, li mu wax tamit macha allah ñu ngi koy jaajëfal rek euh, ndax lii xam la te yaakaar naa xam moom boo jegewu ku ko mën rek ko mën a faj rek macha allah dalay dalay am ci yu bëri yu lay dimbali am ci yu bëri yoo xam ne dalay siy génne waaye sëñ bi damaa gis tey ay jaaro lii jaaro yi moom lu mu doon. <laughs> Jari de dëkk bi mu ngi koy toj de dëkk bi daa ñuy wax si ay jaaro na macha allah eh, jaar yi is dafa wute is tamit jaaro bi moom ban façon jaaro la ndax eh, ndurawul ak jaaro yi ñoo xamante ñi teg nit ñi di di wax jari yi jaaro yi te fekk jaaro yi du dara. waaw jaaro bi mooy li ma la waxoon rek manam jaaro yi bari na ni waaye jaaro yi wute na ndax boo xoolee maanaam ñetti ñetti façon jaaro yi yépp ben benn bokku ceeg sa morom. ñetti façon yëpp benn bokk ci ak sa morom. bu ñuul bi moom lu muy faj. maanaam bu ñuul bii nii su ko xam ne yàlla daf ko nattoo mu mel ne koo xam ne dafa am euh, ndawas rab wala mu doo wala mu am wala mu am faru rab li ñu koy liggéeyal ci jaaro lañ koy def su ko defee incha allah rab yi mën na ko takk ci loxoom te rab dootu ko yàqal mm-hmm. bii koo xam ne wërsëg daf koo të. bu verte bi waaw bu bi koo xam ne wërsëg daf koo të. mën na nekk nag mën na bañ a nekk nag verte. ndax euh, sans compter ci ci ci aqixa bi aqixa bii aqixa la fam gàllaaj nag bu ne ci suuf mbir mi du aqixa bi gàllaaj bi la waaye dama lay tënkal wan la rek aqixa bii nii koo xam ne si ne wërsëg dafa tëë nekk ci loxoom su ko takkee incha allah rabbi ci kàttanu yàlla moom dana am wërsëg bii nii koo xam ne yàlla daf ko natoo moom ci jëmu boppam day gis ne lu mu am mu dem xaalis bu tege ci loxoom rek da ngay gis ne day day day jékki-jékki rek dem buy def commerce nii da ngay gis ne ñaare clients yu bari dañ koy wan wan gannaaw di dem gis nga saa bu amee am am jaaro bi takk ko ci loxoom alaa kulli xaal day dem ba defee ne sax moom jinne moo koy jox wërsëg wi alaa kulli xaal ndax am na ñoo xam ne ñaar da ngay def nit sax parfois mooy ah sëñ bi de jaaro bi moom bu fekkoonte bi ne bayre bi nga ci def dëgg dëgg dëgg mën nga koo wàññi sax mooy gën ndax macha allah wax dëgg yàlla euh, doon na loo xam ne ndamu ci nag waaye jaaro bi may joxe mën naa ne boo doon wóorul pàkk suuf ñi ko ciy joxe néew na ndax euh, xooluñu si koom-koom biñ ciy am liñ ciy jublu mooy jaamu yàlla giñ ciy def ci lañ ciy jublu ndax euh, jaaro yi moom ñaareel lu ne nga ciy dégg waaye yu liggéey ñun suñ la ko joxee jox la càngat bi muy àndal ndax jaaro bi du caagi ne dañ dañ la ko jox rek nga dem jaaro bi nag ku mu neex nga commandé ñu defal la ci sa tur ndax xaatim bi ñu dugal bu neex ñu def ci tur waaye nag bu fekkente bi ne amul tur moom am na leneen loo xam ne moom la def ci digg bi jox la nga takk boobaa day day day dox ci day dox ci ñëpp tay boo ko jëloon jox ko keneen day dox ci moom bu la neexee itam ba tey am na loo xam ne boo ko ci defee muy sa tur nekk ci biir soo ko joxee sa doom du ko jàpp soo ko joxee keneen du ko jàpp suñ ko tegoo tegoon feneen itam kenn du ko jàpp ndax yonent yàlla Suleymaan mm-hmm. jaaro bi mu doon takk euh, ab jaamam mas na koo sàcc ci moom keroog bam ko také la souleyman don def daf daf ko don def kon jaaru ba anniversaire la kon moy jaaru yi mën a nekk anniversaire waye nak kumu neex ñu defal la jaaro bo xam sa tour mo ci nek eh, jaaru bi itam liñu ci liggéey day ànd ak sarax ànd ak it manam eh, cangat cangat bu rëy sax lay doon jaaru bi na doon na jaaru bo xam fi fii ne man nga ko gis ni ci sahir mu nek lu ndaw waye man na yobbu nit ki tay bu doon xëcc walu ngor moo xam nga doon koo xam ne député nga bëgg a nekk président incha allah rabi ci kàttanu yàlla mën nga dem mën nga dem ba doon ko su fekkente bi itam da nekk maire nga bëgg a nekk député incha allah rabi ci kàttanu yàlla mën nañ la dimbali ba nga nekk ba nga nekk député fekkee surga nga nga nekk ci bi fi béréb bëgg koo jiite buñ la ko defarlee mën nga dem ba nekk jiit gi ndax pouvoir la doon boo xam ne foo mën a nekk da ngay jiite waaye doo dellu gannaaw foo mën a nekk ci mbooloo dangay jiituwaay jiitu kenn du des gannaaw incha allah ci kàttanu yàlla. ah jaaro yi de am na solo macha allah xanaa jaaro yi moom ah, ah lii moom jar naa daw moom wut si ko ndax jaaro yi ñëpp a koy wut si ma dëkk ak dëkk dañuy jóge ay dëkk dëkk ñëw ci moom mii di wut jaaro am na. kenn dafa xam nu mu toll. liñ ci yóbbante muy dem bitim réew kenn xamut nu mu toll yàlla seede na ne liñ ciy yóbbante kenn xamut nu mu toll te ba bari na bërëb yoo xam ne da nga gis nit dem nga gis nit takk jaaro sama jaaro la takk maa ko liggéey ci sama loxo bopp ndax ma limay may liggéey yu ci bari du ma ko jox ma sàmba du ma ko jox ma demba maa koy saytul sama bopp liggéeyal ko sama bopp bu fekkee loo xam ne si ne reen moo ci jaadu wala xas moo ci jaadu maa koy wutali sama bopp ñëw indi indi def ko ci du ma jëndi lenn fenn lu ma soxla nekk xam naa lu ñu koy jëndee xam naa nu ñu koy amee incha allah ah loolu moom ñun ñëpp daw comme euh, ni waa bitim réew ni ñuy dawee di wut si jaaro bi kon nag yéen ñi xamante ne yaa leen nekk ndakaaru ak moom ah daw leen wut si jaaro ndax lu mu wax ni am na solo lool lool si jaaro yi waaye waaye sëñ bi duma la bàyyi sungu fii moom euh, doo ma si mën a expliquer ma mën a xam sungu si lan la. ah xam nga sungu fi euh, dafa dafa dafa dafa bari lool te te te néew maanaam bii nii ci wàllu bayre lay dox bii nii ci wàllu bayre lay dox koo xam ne. dafa bëgg a ubbeeku wala mu bëgg siiw ci loolu lay dox waaw moom ci wàllu bayre lay dox cangatu cangatu bayre la daal cangatu sunguf la boo xam ne bayre la waaye nag teewul day ànd ak euh, day ànd ak alxuraan mm-hmm. waa day ànd ak alxuraan bu fekkente bi ne bii la ci wàllu noob lay dox diggante ñaari way dencante yoo xam ne dafa xaw a mel ne lu xaw a dëgër ci loolu ci loolu lay dox ah, loolu sama mbokk soxna yi moom dégg neen loolu nag yi si yéen la intéressé gaaw ñëw gaaw non noob moom noob moom noob noob moom bu ma ci bañul woon ndamu dama naan kuy def nopp ma naan kuy def nopp maa la ko dàq mm-hmm. du ma ne du ma ne man nga li ma man waaye dama naan la kuy def nopp maa la ko dàq ndax lu ma donn la ci sama ay way jur mm-hmm. ñuy lu ñu xam bu ñu ma gisee danañ xam ne kii li muy wax nii fortaatuwu ko mm-hmm. dama ne la photo sax dama ciy nopp maanaam koo xam ne sii ne dangeen ngeen nekk yéen ñaar di dund ngeen dem ba loo wax ni photo dama dama ciy nopp ah, noo ko ciy yow tey jii jëlal photo nit nga jël beneen photo nga boole ñaari photo yi nga ne ma ñaar ñii laa bëgg ñoom ñaar ñu ànd na ma boolee kon nag téye leen seen photo <laughs> sore sore ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi danaa fexe ba ñoom ñaar ñu def nii ñaari jëmm yi lu ñu soree ci ci àdduna na nekk bii nekk sud bii nekk nord danaa fexe ba ñoom ñaar ñu ànd ci léegi ku ma ñaanti ma la mayeti photo <laughs> soxlawu ma sax tur xoola dama ne la su may defar photo yi soxlawu ma sax tur jox ma ñaari photo yi rek ma jàkkaar ma jàkkaarloo ñoom danaa danaa leen boole ba ñu ànd ci kàttanu yàlla incha allah. sëñ bi yaa soxna yaa leen dégg lool de gaaw leen indi seen photo koo leen bëgg rek euh, mu defal leen si ñaan day gaaw yoonu jooni la nag. jigéen jigéen bu ne ci kër di sëy jëkkëram jëkkëram di indil andil na seen diggante naqari lool mu të mu të neex ñu am ay jafe-jafe jafe-jafe yu ñu mën a yu mën a am moo xam raba koy sabab moo xam sabab bi nit moo fa jaar def ko ndax léegi jamono jii jigéen ñu baree bari bari seen sëy yàqu na lan moo ko yàq. mooy nit moo jaar ca suuf fexe ba tàqale leen ndax ala kulli xaal yàlla mooy moo mën a jàppale nit mu def mooy liggéey yu baree bari yàlla moo ciy ànd ba tax lii am am waaye jigéen joo xam ne dañoo yàq sëyam bu fexee ba nu jokkoo incha allahu rabbi danañ fexe ba sëy ba neex kooku moom ay junni junni junni nit yoo xam ne amoon nañ problème mu sëy man maa fexe ci kàttanu yàlla ndax man moom jaam jaam rek laa waaye ci kàttanu yàlla fexe naa ba ñoom ñu àndaat boo xam dañ dañoo tàqali koo dem ndaw si dafa ndaw si dafa dem ñu wàcc ko ca kër gi mu jóge fa dem incha allahu rabbi danaa ko delloo ca kër ga ci kàttanu yàlla. ku ñëwoon nekk nii ba pare seen diggante naqari waaye bàyyante wuñ ndax gis nga sëy li ko takk tasu ko am na sëy yoo xam ne waa ji bëgg naa wàcc ndaw si waaye mënu ko wàcc waaye mi ngi koy torturer ci kër gi mu ne ci kër gi di di dund ay jafe-jafe incha allahu rabbi mën a doon ci kàttanu yàlla. wallahi danaa fexe ba jëkkër ji mel ne xar ci kanamam loolu nag gënut ndax jigéen dafa war a jaamu boroom këram waaye borom kër warta nekk surga waaye suy balbal lu ni mel ne mel ne mel euh, gaynde ci kër gi yàlla xam ne danaa ko def mu nekk muus waaw su fekkee jigéen xam muus ba dootu ba dootu yëngutu ah, sëñ bi mujj na garaaw de dégg na li mu wax dama ne la dama ne la li ma la wax nii hmm. ñi ñi ma jëflanteel ci wàllu nopp xam nañ ki ñu jëflanteel kan la dama ne la man bari na jigéen ñoo xam ne seen sëy neex na man maa ko neexal la waaye nag du tee danaa la digal ne la lii moo gën ba pare danaa la xamal itam ne bu ma sañoon nii ak nii ngay sëyee man du ma du ma boo xam ne dama la ñaan rek nga dem danaa la conseiller tegaat la ci yoon man moom képp ku may ñaanal xarit sama xarit la. Mm-hmm. waaw maanaam damay wax ne maanaam sama ay xarit mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom laay ñoom laay ñoom laay ñoom laay ñaanal. ñom ñoy sama lepp ndax man musuma nit musuma xam man ba pare wan ma gannaaw mm-hmm. ma xam nit ma diko ñaanal mu wan ma gannaaw ko wat andil ma yeneeni xaritam waye loolu xam ma ba pare wan ma gannaaw mom koku mom moy moy wacc sa ndariñ mm-hmm. ndax man xam ma moy ndariñ mm-hmm. xam ma man ma nga xam seigne Abdou rek koku mom jariñu nga ba pare ndax desuma xam mukkuri am problème ak jafé jafé bo meuna am ci rei, lu mu reuy reuy reuy reuy ci carton yalla lo xamni ci ne ñaan borom bi dana ko maye suma ci ñaané yalla mu fekk sima ci te ne bari na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci ruq dañoo dem ba amee loolu ñuy amee goitar lan moo leen ko teg mooy jafe-jafe bu ñu dund ñu leen koy teg di leen torturer nanguwuñu leen a bàyyi mm-hmm. dëgg la sax bàyyi yi baaxul ndax yàlla moo moo moo moo ne moo daganal takk waaye moo daganal fase waaye bëggu ko bëgg ko jigéen it bu ngeen demee bay sëy ba ba neexatu la bàyyi ko mu dem mm-hmm. waaye duñ la bàyyi nga dem dañu dañu wàññeeku di la teg ay ay ay ay problème waaye comme ci mën a doon ci ñooñu ngay am ngay dund ay jafe-jafe jafe-jafe lu mu tar tar tar ci kàttanu yàlla bu nu ñëwee sa boroom kër lu mu bari bari bari xatar danaa ko tegaat ci àndam danaa ko nen lii ngay def du ni nii la danaa ko wàññi ba ba li ma bëgg dana ko def ci kàttan waaye léegi ba tey duma la bàyyi damaa gis feere ñi soxna yi ñu booloon doo ak seen borom kër yi nekk benn waaye soxna yoo xam ne dañuy bëgg ñëw si kër fekk si wujj bëgg a tas eh, sëy boobu nag def def lu bon daal est koy def waaw jërëjëf soxna si waaw bu ma nee mosuñu ma ko sant day waxuma dëgg waaye yàlla xam na ni mësumaa tàqale diggante ñaar mbaa boog ñi ma tàqale yàlla di leen a maa maanaam suñu borom bëggul bëggul bëggul ñoom ñaar ñu ànd mooy ñaar ñuy ànd di mooy yàlla kooku de moom tàqale naa ko boo bëggee itam maye jigéen sa doom taq keneen koo xam ne yow ki mu ki mu bëgg àndal nii xool nga ba xam ne mënuñoo ànd moo xam ci fànn gu mën a doon nga ne ma damaa bañ ñu ànd ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi boo ñëwee danaa fexe ba du ñu ànd waaye nag sëy moom ñaar bu alxayri bu xasee jib kooku moom boo jëloon un milliard wala lu ko ëpp nga teg ko ci taabal man ak yow rek ci ruq wallahi la azim mënoo fexe ba ma nangul la ko ci kàttanu yàlla kooku moom ak kum mën doon maa ngi nii taxaw ci écran nëbbatuwuma kum mën a doon na jël lu ko ëpp mu ne ma def sant ma sant ma lii te am na ci ñoo xam ne man te <laughs> boo ma santee yenn yi sax ba tama tama lànk-lànk nga nga nga nga nga sosoon sonal ma ci defal ma nangam dama lay laaj loo xam ne mënoo ko am mënoo ko liggéey ba am ko. waaw ba la joxe xaas bu bëri nag euh, comme ay ay ay million jëm kaw euh, dala koy defal. milliard sama ngor de su ko jënd. man sama ngor de su ko jënd ngor koo gis mu jaay ngoram amu ko woon man sama ngor de su ko jënd loo mën a jox ci àdduna lu mu bari bari di ma sant safaan du ma ko def. billaahi boo bëggoon a dàqulu li li li li li gën a yomb maanaam dàqulu nit ci place dàqalu nit ci place li gën a yomb nga ñëw sant ma ko ma xool ba xam ne ki ngay dàqalu nii li tax nga di ko dàqalu sa intérêt bopp moo tax billaahi loo mën a faytu du ma ko def te def ko comme naan ndox la la ci man dàq nit ci place mu génn comme naan ndox la ci man dama dama koy def tey tey yi laa koy def ñu da ñu dàq ko tey wala suba ñu dàq ko ak lu mu fa doon lu mu ku mu mën a doon lu mu rëy rëy rëy rëy wallahi dañ koy wàccee mu daanu ku mën a doon. léegi nag ñu bëgg a nekk comme ay président affaire yooyu yëpp man gis naa ko ne na si jaara bi boo ko takkalee ndomba tànkam day gën a yéeg léegi nag ku bëgg a taxaw samp sa bopp si wàllu arène beeg ak si wàllum football beeg yooyu yëpp bëgg naa la dugg si. dama ne la bu fekkente bi ne da bëgg a siiw rek am na ñoo xam ne ci kàttanu yàlla ndax man lii ngeen def nii bett na ma sax pour ma def ko. xam ngeen ne dañ ngeen lu bari ngir ngir mu am waaye dama lay leeralal ne la am na si ñoo xam ne ci kàttanu yàlla suñu jëmm li muy xeebu xeebu ci kàttanu yàlla ñun ñoo fexe ba yóbbu leen fanu ne ci wàllu yëkkatiku football yi itam am na ci ñoo xam ne ci kàttanu yàlla ñun ñoo fexe ba équipe bi ñu nekk ñu jël leen bañ fi jëlee yóbbu leen bitim réew koy ci kàttanu yàlla ñun ñoo fexe ba ñu jël leen yóbbu leen bitim réew. waaye est-ce que doo jàppale équipe nationale. non xam nga équipe bi fu mu toll jamono bi. équipe nationale mënoo leen a jàppale na man du ma ne kenn yàlla nuyu na la te gisuma ko dëgg la nag mën nañu football ma toog jàkkaarloog ñoom ñaan ci yàlla ngir ñu am ndam ngir ñoom bu ñu amee ndam man am naa ndam ndax Sénégalais laa comme ñoom waaye nag jaralaguma ma toog dagg xaatim toog yor kurus ñaanal leen ci loolu moom jaralaguma ko ndax man. ndax joxaguñ la xaalis daal joxaguñ ma xaalis te man fi mu ne nii yàlla du ma koy bu ma bu ma koy ñaan yenn yi dafa lu ma war sama diggante ak moom. kum mën nit a ngi wax naan jox leen ma nàngam a def nangam déedéet jox leen ma nangam ma def nangam ay caaxaan la rek ay caaxaan la bu ñu la ko joxee tam lay am faaw mu am lay am faaw am waaye dama lay leeralal ne la lépp loo xam ne si na tax naa jóg nit ba mu ñëw jàkkaarloog ma ne ma sëñ Abdou Lahad lii laa bëgg loolu dama koy def ci kàttanu yàlla man jàpp naa ne ñaan amut lu ci amul lu munta nekk ñaan man jàpp naa ne ñaan lu munta nekk amul ne mënuma xamuma mën na ne waaye man gëm naa ne gëm naa ne ci kàttanu yàlla akuk mbaaxam fii nu nekk nii mën nañu ñaan suñu borom ba mu wàcceel nu dal bi ba mu ba mu ba mu tolloo ak ñun nii ci kàttanu yàlla lan moo koy joxe secret te secret am na yoo xam ne am nañu ko kon am na secret kon ñu bu xale yi xam ne bëgg nañu tukki te amuñu fa euh, fu ñu mën a jaar visa wala passeport yomb leen yow nooy def ba dimbali leen si loolu ba ñu tukki d'accord euh, kooku tam képp koo xam ne si ne bëgg ngaa tukki dama ne la mën nga bañ a yor visa mën nga bañ a yor passeport mën nga bañ a yor dara dentité bu doon neex mën nga ko bañ a yor nooy def ba tukki te bu nu paree ci yow ci kàttanu yàlla da nga tukki ak noo mën a tukkee ak loo mën a yóbbu amoo passeport amoo visa te da lay tukki oh, waaye yow tukki lan la ah dama defan kayit mooy tax lay tukkee yóbbu nit ah kayit de ñaata nit ñoo fi def bi am na loo dama xam nga am na loo xam ne du ma ko sax wax ci dama ne la am na loo xam ne su ma la ko waxoon boo ci toogee nii da dugg ci val te kenn du la contrôler yàlla seede na ak alcorane te ñi koy xol ni dañ xamne ki kii wax ni dëgg la. ah yalla ko déggal. dama ne la vol bi ngay dugg kenn du la ne yow andi kayit tax do wax duñu wax suma ma neexoon suma su ma man na maa jóg rombulé ni te du ngeen ma gis. billahi ma jóg rombulé ni dugg vaayé bi ni te du ngeen ma gis xam nga yàlla dafa maye. xam-xam nga amna nak ëpp nay wax. dama ne am na loo xam ne sax ëpp nay wax. amna lo xamne sax ëpp na wax ndax da fay melne Euh, lenn la waaye nun dama leen di leeral ne leen nun jaam rekk lañu te yàlla dafa maye te tëlewul dara suñ borom subhanahu wa taala xeex na ba jant bi génn mu ñaan boromam mu arriéraat ko te doomu aadama la te yàlla mi nga xam ne moo moom mbiram yii te di ko maye képp ku sellal jaar ci yoon li nga bëgg yàlla dana la ko defaral yàlla xañewul dara lenn rek la mayewul mooy nga doon ko moom ngay boroomam ngay noon suñu borom qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha yàlla rek moo yeyoo nguur te ku mu sàkkal nguur nga am ko mbir nag da nga koy def ba defee ne lenn nga ci déedéet lii doonuñu ci dara yàlla moo far ak ñun ñu koy ñaan mu dinu may waaye loo yaakaar ne wurta mën a nekk suñ ko ñaanee yàlla mën nañu ko mën ah, nañu kon ñu bëgg a tukki sax mën na toog nii ñaata at te judduwaale wu ko nga ne ko xum bi isnillaahi mu jóg dox ay tànkam ci kàttanu yàlla ci loo xam ne du dara di di diiran bi muy am mooy une heure de temps lay doon mu jóg dem yoonam ci kàttanu yàlla incha allahu loolu dara loolu dara ñaan yàlla mu nangu moom kon ñu aw ah, ñu bëgg a ah, ñu déposé bi mooy mooy jënd crédit am sa soxla woote nga woote jot ki ngay woo mu jeex mooy ñaan yàlla mu nangu da ngay jënd crédit rek xoos crédit bi def sa téléphone affaire yi ay code la daal ay code eh, waaye xam nga mbir mi yombul nit mën na toog ki der ñaa fanaanee ñaan ba bët set li mu ñaan yàlla du ko ci may dara na xool xolam ak la muy dunde ak la muy sol waaw sellal kon nit ñu déposé visa te amuñu visa nañ ñëw seet sëñ bi dégg na lu mu wax mu ne mun na romb nii te kenn du ko gis kon nag ñëw leen daw ji ndax gars yi a bëgg a tukki waaw comme sëñ bi waxtaan nañu si wàllum tukki bi ba wax passeport beeg yëpp gars yi yëpp dañu doo xam naa ñëw sees li ñëw fëgg bunt bi nag la jàppale leen waaye nag dafa am loo xam ne mu ngi lëmbee dëkk bi euh, muy ndomb bi ndomb bi daal toj na ndakaaru toj na kees toj na euh, fee ndar ak ak Touba ndomb boobu moom ban ndomba la waaw bi mooy ndomba takk dabe ndomb bi moom euh, ñi ko bëgg bari na lool waaye dafa dafa dafa dafa jafe ay mbir nag nekkul nag lu yomb ndax lépp lu yomb ki la yombal moo la ko xañ ak lu mën a doon ci àdduna rek lépp luñ ne la dafa yomb ki la ne dafa yomb kooku moo la ko xañ ak lu mën a doon bu doon ndox sax yombut am na dañuy yombul am na dañuy kon dara lu yomb amul ci àdduna waaye ndomb boobu dama ne la koo xam ne daf ba ba am dara dara dara ak lu mu dëgërle dëgërle dëgërle dëgërle soo ko sangoo at mi nga ko sangoo doo ko génn te wóorloo wërsëg wu nuy wax ci incha allahu rabbi incha allah ndomb bi loolu lay def ah, damaa am lu ma gis sawet ah, te bëgg naa tamit lu dugg si muy leget bi leget bi moom lan la leget bi lan la moo lan moo ko tax a jóg waaw xam nga xam nga yéen da ngeen doon ñoo xam ne maanaam da ngeen a sob maanaam lu ngeen gis mu nëbbutu da ngeen fexe ba ba ngeen fexe ba laajte ko maanaam leget bi dafa doon loo xam ne lu ñuy donnante lay doon maanaam leget bi euh, nekkut leget boo xam ne leget la boo xam ne nit moo ko dem def moo ko dem liggéey ko defal leket bi nit nit du leket boo xam ne nit a ko nit a ko def moo ko defal leket bi alali jinne la gis nga lu waaye dëgërle le dëgër le dëgërle dëgërle lu mu dëgër dëgërle dëgër dëgërle soo ko cangatee ci sangat bi mbiram dana baax ci kàttanu yàlla ak lu ak ak lu ay mbiram lu mu dëgër moo xam koo xam ne dafa dugg fu nekk ngir ay mbiram dox lu mu am mu yàqule munta fexe ba dem soo ko ci sangatee ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi benn yoon rek nga ko ci sangat su demee incha allahu rabbi du dox ab diir ne la ma bëggoon am naa ko ci kàttanu yàlla. léegi bi la euh, jortu nañu ne jortu nañu ne ñii dañ naan yax la ñii di wax ne euh, kii la maanaam euh, new la ci meññ gu muy meññ waaye dama ne la. lu waaye dëgërle dëgërle dëgërle incha allah rabbi ci kàttunu yàlla buñ la ci sangatee am na ñoo xam ne dañ naan la man sëñ bi leket gi may dégg laa bëgg nga nga nga defal ma cangat loo dëgërle dëgërle rek suñ la ci yabee la nga bëgg da ko am incha allah rabbi ci kàttunu yàlla doonul woon nag loo xam ne sax lu ñuy wane la waaye xam nga yéen moom da ngeen a sopp te da ngeen di laaj ak lu ne ngeen laaj ko moo tax ñu leeral la ci loolu waaye am na loolu yaa leen ko déggandoo kii mooy Serigne euh, Abdoulahat Diop euh, borom bagages yi daal mooy moom kon daw si leen ñëw xool si ay bagaasam ndax bagaasam ñàkk ko am wóorul de kon daw si leen ñëw waaye nag ba tey duma la bàyyi am na lu may sént euh, macha allah bëgg naa la xam si karaw bi lan la. waaw karaw bi de karaw la boo xam ne hmm, ci ci ci ci wàllu mbiri jinne lay dox. maam day dafa am lu muy woytal ci nit daal xëy na bu nu bu nu bu nu bu nu fayoon lii dana ci mën a leeralal lu bari waaye baatin la daal am na lu nekk ci biir daal am na am na am na am na loo xam ne ci lañ koy euh, maanaam daal karaw la ci karaw yi daal <laughs> dañu jàpp karaw si biir karaw yi waaye nag euh, daw si leen rek comme nu ma leen koy waxee saa su nekk ñoo ngi si télé VFtv tey ñoo seet si euh, sëñ Abdou Lahat euh, Diop kon nag sëñ Abdou Lahat ñoo ngi si càppaandaw bi looy digal ñoo xamante ne ñu dañu am ay jafe-jafe comme nu la lim yëpp ñu daw si mun a ñëw si yow joxe sa numéro xam naa rek ñoom ñu xam fu ñu mën a jàpp ñu seet si la pour wax la la gën leen dimbali seen wàllu yaram. waaw jafe-jafe damay la jafe-jafe bu dal nit rek. jafe-jafe bu lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy bu nu jàkkaarloo dana dana saafarawu koo xam ne dafay ne ci béréb ñu koy ñu koy toxtoxal di ko xeex di ko liggéey moo xam ngay directeur de société wala wala ñu ñu bañ nga dem wala ngay président ñu nekk ak yow di di wej weji di wax dama ne la xoolal gis nga gaynde goo xam ne dafa waaf dafa dafa waaxu jëm ci déeg di naan yi kooku faalewul yuuxu yuuxu yoo gaynde boo dee jëm ci dégg naan yi faalewul yuuxu yoo képp koo xam ne si ne ñëw nga seet suñu looy mën a liggéey nga am ñu lay xeex di la indil ay jafe-jafe wala ñu bañ nga dem wala ngay sàkku dara fi bërëb ñu lànk bañ la koo jox ñëwal nga seet suñu danga nga fa dugg far force la nga soxla danañ la ko jox ci kàttanu yàlla incha allahu bu fekkee danga doon kuy liggéey nga doon koo xam ne danga jóg ñëpp xam ne borom jom nga ngay dem ngir yàqal la comme ni ma gis léegi sama soxna si nga xam ne mooy mooy mooy kilifa euh, tele bi maa ngi maa ngi jégul sax ci ci ci wax ji waaye dama gisal sama bopp loo xam ne man maa ko gisal sama bopp kenn waxuma ko muy loo xam ne gàllankoor la yu yu yu taxaw ci kanamam moo tax ma ne ko yow li ma la xamal mooy leen xoolal lu la neex defal lu la neex waxal bu la neexee sax sumeekul def yaramu neen nga nga nga nga ngay dem amul kenn ku la mën a gàllankoor tey bu fekkoonte bi ne war na otoom sax romb la ku mu neex jëlal sa balu pistolet boo xam ne silencieux la nga dóor ko ci soo ko ci dóoree incha allah rabbi bal bi dem delsi lay doon mooy ba saan woo xam ne day dem ti delsi te kilifa gi dafa wax ne saan wuy dem ti delsi jonkanu béy doy na ci kon doomu aadama képp koo xam ne mu ngi taxaw di xeex nit rek man ma gis ne kooku dañ koy xeex te mu xam ma man xeex ba lu mu rëy rëy rëy incha allah rabbi ci kàttanu yàlla moom may xeex ak moom mooy daanu am na loo xam ne soo ko defee ci sa yaram wii képp ku xëy di liggéey ngir gàllankooral la ak ku mën a doon waaye bu dee koo xam ne ku mën a doon bu jógee di ko def dana ñëw baalu la àq mbaa mu daanu gis nga càngat bi nga gis nga gis nga càngat bi nii liñ koy liggéeyee juróom-ñaari garab la yoo xam ne dafa rey nit maam nit dafa yéeg ci garab di fàq dara loolu nag suñu àllu Casamance bi la ëpp fu muy am nga yéeg ci garab di fàq dara daanoo ci kaw daanu ci suuf jóge ci kaw daanu ci suuf bi mu daanoo nag nekku fa ñu ne nañ ko yóbbu hôpital déedéet buñ ko xasee yóbbu hôpital fekk muy dund rek duñ ko laal waaye bu daanoo rek nit ñi ñëw daw dikk fekk mu faatu loolu xas moomu ci lañ koy liggéey te buñ koy liggéey itam am na leneen lu ñu koy lu ñu koy lu ñu lu ñuy lu ñuy taal ak lu ñuy jàng am yu ñuy jëfandikoo ba def ko ñu xas ba muy ba muy juróom-ñaari garab yoo xam ne bokkul gis nga boo ko booleeg càngat bii nii nga fexe ba jox ko jëmm ji mu sangoo ko yàlla seede na ne ku jàkkaarloog yow tàngal sa xol gestul wan ko gannaaw rekk sa ci sa gannaaw booy gestu di wan ko gannaaw léegi aw taatam di tàng hmm? billaahi su fekkee bañ nga jafe-jafe utal ndox nga moo ko bu sa kanam di sedd moom ay mbiram di sedd waaye kum mën a doon moom soo ko sangoo ba pare ku la laal ku nekk kum mën a doon dana am lu mu def ci kàttanu yàlla moo tax man su ma sañoon nit duma xam mukk di ñëw ci man di di fëgg sama buntu nit xam ko di di dal ci kawam loolu la maa dal rek yaa ko teg sa bopp ci kàttanu yàlla yaa leen ko déggandoo kii may sëñ Abdou xaat Diop waaye ne duma la bàyyi percal bi moom perkaal bi waxaw ma si dara de xam nga perkaal bi euh, dama ne la liggéey bu nu liggéey nit liggéey ba lu mu dëgër dëgër dëgër moo xam dañ ko liggéey ba mu dof moo xam dañ ko liggéey ba ba mu ba mu nit koo xam ne dañ ko liggéey ba mu dof wala mu doon koo xam ne. ok kon kon loolu ma doon wax léegi ci ci wàllu perkaal bi maanaam koo xam ne yàlla daf ko nattoo ñu liggéey ko liggéey bu tar bu métti moo xam dafa dof moo xam dañ ko liggéey ba tàqale ko ak alalam amatul dara moo xam koo xam ne si ne dafa nekkoon ci béréb di liggéey ñu jëlee ko fa ba nekkatu fa wala jigéen joo xam ne si ne moom tam noonu wala koo xam ne si ne dafa am lu ko jàpp ba ba mu dof kooku li ñu koy li ñu koy liggéeyal perkaal lañ koy lañ koy tegal mu taxaw ci ko perkaal bi mu sangu su suñu ko sangatee incha allah ci kàttanu yàlla dafay gis deret bi ni muy sotti ko ci yaram bi di génn nga xam ne yàqu-yàqu yeeg def-def yi mooy dem xanaa xamuloo ne doomu aadama léppam deret la nit ki buy ganee àdduna buy ganee àdduna ñi ci ëpp deret mooy génn mu topp ci toppaat toppaat ci jigéen itam balaa mën a doon jigéen dëgg dëgg war a mën a ëmb war a wasin la muy njëkke mooy tur deret mooy gis baax gis nga yaram bii tey ñaq di génne soo ko laaloon tey jii deret mooy génn kon doomu aadama lépp loo ñuy def ci moom deret lañ koy def gis nga nit tey fat nit fat nit ba yàqal ko ay mbiram ba ba naan faatu na wala faatuwul ba fatt ko ci deret kooku noonu ñu fatt buñ koy fatt deret lañ koy fàtte tey boo ko defaree boo ko boo ko suuree cuuraay bu tislee rek dangay gis ne deret mooy génn ci bakkanam tey ji rab ku mu jàpp wala jinne wala seytaane wala leneen da ngay gis ne bakkan bi day bor li nga koy suur boo ko suuree deret ji day arrêté kon lépp lu ñuy def ci nit ci lu fànn googu lañ lay liggéeyal ci deret ci deret lay lay doon te loolu boo doon wër ci kaw suuf ñi ci ëpp pour nga nga gis nga gis ko koy def dama naan la doo ko gis ndax dama naan la li ñu xam li ñu xam man ko du ma ne man kese maa ko xam maa ko man waaye néew nañu ko man waaw kooku moom fu ma taxaw mën naa faa ndamoo ci kàttanu yàlla ne lii man kese maa koy def loolu nag du loo xam ne nit moo ma ko jàngal nit jàngalu ma ko. kon ñu lay jaajëfal xam naa ne comme lay wax na sànq la jaaraale foofu tàgguwaale dafa am loo xam ne la may ñu tuuti bonus ndax xale yu jigéen ñaa ngi ëmb amuñu jëkkër ah, te waajur yi jaaxle nañu loo mën a wax foofu tamit. d'accord léegi gis nga bu fekkente bi ne jigéen yàlla dafa dogal nga nga am doom muy góor muy jigéen da bind xunóot. اللهم انا نستعينك ونستغفرك انا الى اخره ايه aaya su fekkee mën nga koo bind nga bind ko soo ko mënta bind nga dem ci ku mën a bind nga bind ko xunóot mooy li nga xam ne bu ñu jullee suba ba noppi moom lañ ciy teg ñaari rakka yi boo jullee ba noppi boo taree fatiha ak saar boo tekk jooju ngay tekk moom la ñuy moom la ñuy tari nga bind ko saafara jël tuba yu jigéen silib bi wala tuba yu góor silib bi bi nga xam ne mooy nëbbu awraam nga def ko saafara ba pare nga jël ko euh, maanaam euh, fóote ko ko waaye da nekk nag bu bees tàq boo xam ne kenn mësu koo sol nga weñ ko ba ndox mi wàññeeku nga solal ko ko ci tooyaay bi incha allahu rabbi ci kàttun yàlla soo ko defalee yàlla xam na ne dana dund ba génn àdduna du mooy yàlla bu dee góor du mooy yàlla bu dee jigéen du mooy yàlla incha allahu rabbi ci kàttun yàlla bu fekkente bi ni tama tey ne euh, jigéen joo xam ne dafa doon koo xam ne maanaam nef daf koo yomb ay doomam di tegaloo lool na fexe ba ut euh, li ñuy wax euh, bantu euh, sendal mooy sendal mooy yooyu nga xam ne bu ñu masaan dem tool ca la ñuy def dugub sendal nga ut bant bi wut ci dara lu mu tut tut tut rek boo paree nga ut fettu jiit nga boole ko ak moom soo paree nga ut maanaam poftan boo xam ne picc laalugu ko ñeent yooyu ngay boole nga takk ko nii ba mu nekk benn say nga takk ko sa ndigg incha allahu rabbi ci kàttun yàlla li feek li feek jigéen ji sëy mi ngi koy def ala kulli xaal yàlla dina ko dimbali ci kàttun yàlla ak mbaaxam li feek mi ngi ci ndiggam moom doo doo doo doo dégg mukk ne ëmb am na waaye nag waaye kenn du ko sanguwaale waaye nag bépp jigéen boo xam ne jël nga ko nga jëfandikoo ko te alxayri jibul ci yow bis boo ko defee ci kàttanu yàlla bis boobu da nga ëmb munoo ci dara kenn munu koo kenn kenn mun loo munu laa munoo fexe ba doo ëmb bépp jigéen bu ko takk te alxayri jibul ci yow soo ko takkee incha allah rabbi ci kàttanu yàlla saa boo sëyee bisu keroog ëmb dana la ci toppee ci kàttanu yàlla noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte bu baax a baax ak kontaante ci kilifa kilifa kër gi di soxna si ñu ngi koy ñaanal bu baax moom nag daane ci biir waaye bëggut a feeñ doon ku yàlla ku yàlla baaxal nag mu baax lool wax dëgg yàlla amu ko oyof lool ndax lii lépp xëy na ak baaxam ak itam bëgg lu baax xam ne itam ñi nga xam ne ñu ngi ci seen ruq am lu nu yor na jóg sol dàllam taal otoom def gaasaalam ñëw fekk leen fa ngeen nekk mu jël si leen génne leen ngir lu yaatal askan wi ndax li ma wax léegi rek ne ma télé bi tele askan wi la soxlawu ci ngir moom lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu dépensoo pour pour lekk déedéet soxlawu ci lu mu wutee dara lim ci soxla mooy lu neex askan wi ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom nan lay mën a fexe ba ñu am seen yëfi bopp jigéen nag bu jógee taxaw ngir dem nag ñépp jóg taxaw jàppale ko ku baax la ku bëgg lu baax la ku sell la ku ku jaar ci yoon la incha allah rabbi fas nañu yéene bis na tey taxaw temm ngir jàppale ko ngir fa ay moroomam egg ci dem mu mu dem mu dem ba yegg fa ndax euh, lii mu def nii am na ay moroom yu xam ne bëggoon nañ ko te mënuñu ko woon a am kon ñoo ngi sant yàlla bu baax baax di sant euh, sunu sëriñ sëriñ Abdul Aziz borom daaru Tanzil di sant sëriñ xaadim rakkam sunu xarit sunu sunu jëwrin sunu soppe ñoo ngi koy sant bu baax baax di sant euh, mbooleem caméraman bi ak sëriñ bi yéen ñëpp ak soxna yi ñëpp ñoo leen sant bu baax di leen gërëm wax dëgg yàlla accueil bi neex na euh, neex na lool ni ngeen nu ni maanaam nii ngeen ko defee am nañ ci mbégte lool ak kontaante ndax wax dëgg yàlla lépp seen seen seenu baax rek la ak bëgg lu jëmale seen mbir kanam waaye lu lenn loo xam ne sax lu nu def la maanaam du lu ñu yëkkati suñu alal sax di leen ko jox waaye xëy na seenu baax rek ak bëgg lu neex askan wi bëgg itam lu dimbali lu dimbali jaam ñi ndax jafe-jafe yi bari na léegi problème yi bari na ñiy wax ne mën nañu bari na te ñi ñu néew la euh, ciow li bari na lool waaye nag eh, yàlla moom moo man lépp xam lépp ñoo ngi ñaan ci yàlla ci kàttanam ak mbaaxam fépp foo xam ne nit mas na faa jaar di dem ci wàllu liggéey noo ngi ñaan ci yàlla yàlla na leen yàlla dimbali taxawu leen seen mbir yépp jëm ca kanam cameraman bi tam bokk ci cameraman yi nga xam ne mooy sut ci mbooleem liggéeyu cameraman dem ba am groupe de presse am ci kàttanu yàlla yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def ndax ku yaru la ku baax xëy na jotaay bi yàgg na waaye teewul daf ci ànd ak sax mbégte bëggut sax mu jeex soxna si yow tam ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ci ci ci ci laaj yi laaj yi tegginu na wax dëgg yàlla laaj yu am yar la laaj yu am tegginu ñoo ngi lay ñaanal baax a baax di fa nga bëgg a egg yàlla na fa yàlla eggale kontaan nañ baax a baax waa àdduna ñëpp rek ñoo ngi bég ci ñëpp di wax ne daal euh, ku mat a jàppale daal mi ngi nii mooy mooy kilifa gi ku mat a jàppale mi ngi nii may sàkku ñëpp nag ñu ñaanal ko képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog man di ma xool maa ngi ñaan ngeen te nag duñ ci weet incha allah ci kàttanu yàlla te li nu wax xam xam na ko moom moom man moom xam na ko xam naa ko yéen ñi jàkkaarloo man xam ngeen ko kon wa alaykum salaam wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ñun lay jëfal bu baax baax euh, tey jii kontaan nañu macha allah tamit ñuy seetaan tamit xam nañu sëñ euh, Abdou xaat Diop macha allah nu mu leen ko waxee rek ku ko soxla rek euh, fekk leen ko kees ak ak tuuba ak ak Ndar foofu la dëkkuwaayam nekk te yaakaar naa ko sëriñ bu mat sëriñ la ndax li mu lim yëpp macha allah moom la askan bi soxla waaye tamit lu mu wax tamit suñu borom kër gi macha allah tamit kooku mooy jigéen mën góor mooy mooy ñaa ñu ngi koy jaajëfal bu baax camaramanam macha allah ñu ngi koy jaajëfal di leen jaajëfal tamit euh, ñu toog euh, di seetaan VFtv maa leen di jaajëfal di leen jox dajee ba beneen yoon incha allah.